publique du lenn loo xam ne ku ne war na ci joxe xalaatam ak gis-gisam ci doxalin société bi wala doxalin réew mi ku ne am nga ci place ku ne war nga ci wax loo ci xam te ñëpp war la ko mën a nangul tey ji ñu taxaw ne dañuy seetlu tolluwaay débat public bi liñ ci gis mooy niveau bi ak qualité bi wàññeeku na loolu lii di espace public nekk loo xam ne bëri na ci ay acteurs ñi nga xam ne dañuy yëngu ci bépp secteur ku ne war ci joxe xalaatam ci jamono suñuy maam dañ doon toog ci suufu garab di waxtaani doxalinu société bi ak askan wi ñu jóge fa ñu gis ni bu ñuy waxtaanee mbiru askan wi dañ koy amal ci mbedd mi wala ci média yi wala ci réseaux sociaux yi tey ji ñu gis ni dem nañu ba toll ci jamono joo xam ne doxalin boobu dem na ba ëpp ñu loxo ndax kat du ñuy nga xam ne ñoom ñoo am xam-xam wala am ay diplôme ba ñëpp ràññee leen ñoom ñooy waxtaane li nga xam ne moom moo soxalaaskan wi ndax ñooñee su boobaa bu ñu koy waxtaanee dañ koy am fu wóor fu ñu koy teg ndax am na ñu xam-xam boobu ñu gis ni dafa am espace public boo xam ne mu ngi juddu ndànk-ndànk te di jël place am ci biir askan wi espace public boobu sax la ñëpp gis dëgg la moom la ñëpp di gis nekk espace public boo xam ne ku ne ci lay xoolee boppam ñi nga xam ne ay hommes politiques lañu ay universitaires ay intellectuels wala nekk ay élite francophone wala arabophone di dund pression bu metti loolu bàyyeekoo ci espace public boobu di espace public boo xam ne ñi ci ne dañuy di ay doomi aadama yoo xam ne dañ beddi yoon ñu nekkoon ñoo xam ne mën nañu woon joxe seen xalaat ci doxalin réew mi wala ci doxalin askan wi moo tax tey jii ñoom la ñuy déglu ci émission yi ñu jàllale ci tele yi wala ci rajo yi ak ci réseaux sociaux yi ñoom lañ fay fekk ñu créer seen espace public bopp di espace public boo xam ne dafa taxaw jaakaarloo ak beneen espace public boo xam ne moo fi nekkoon waaye li am ba des mooy espace public bu bees bi kenn xàmmeetu ko ndax bu ñu koy xayma niveau bi qualité débat bi mënuñu ko rafetlu benn yoon am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi koy ñaawlu ndax li ñuy fekk ci espace public bu bees bi mooy ay saaga ay xasaate ay tuumalante di loo xam ne xamuñu ko woon ci suñu askan loolee mooy dundal espace public bu bees bi muy loo xam ne doy na waar te war nañu ko xoolaat war nañu xoolaat suñu taxawaay ak suñu doxalin ci mim réew ndax kat mu ngi dox nànk-nànk te fu mu jëm du foo xam ne jàmm am na fa ndax war nañu mën a dem ba xëy na xalaat taxawal wala sos ab code de boo xam ne dafay organiser li nga xam ne moom mooy espace public bu bees bi ba nga xam ne it ku ne dina ci gis boppam loolu war na mën a ne ndax kat bu ñuy wax espace public dëgg-dëgg mooy foo xam ne ku ne ak foo munti féete war nga mën a joxe sa xalaat joxe sa gis-gis ci yëf nu muy doxee te ñi nga xam ne ñoom nga jàkkaarloo war nañ la ko mën a nangul loolooy espace public ci ab société bu démocratique